jullit rawat murid day fonk ñaan ñaan mom lo am am solo la ndax bu fekkente ne nit ki tay ñaan na ne man de dag ma yalla jox million na sun borom nangu ñaan gi ba nopi set ne nit ki kat ñent fa ne ko desi ci àdduna kon du lek million bi nangu won nako ba nopi waye million boobu mu wotel lako nga dundati juroomi at nga delu ñaanat million bi bàyyi wo bu may la ko ba noppi gis ne yow kat am na euh, tawat ji ko ji war a dal waa ji te bu ko dalee day fajoo million bi daf koy fajoo nangu na ñaan nga de waaye mu mu mu wóotale ko mu remplacer ko tawat jooju wér wala mu bañ koo dal naka noonu ba ba muy gis ne bu million bu ñëwee jëriñ ko mu sokk koy jox mu tax ñaan nag booy ñaan dafa ami charte bu charte yi matee rek ne la wóor na nangoon waaye bul na mukk nanguwul ndax bu dana nangu fukki yoon am lu koy gàllankoor loo xam ne bu ñëwee du la jëriñ ñu faye ko loola boo continuer ñaan rek ba yooyu jeex ñu may la